waaw asalaamaaleykum man la Abdoulaye Ba di gestionnaire yi bureau de des piroguiers de l'embarcadère waaw euh, avant avant pirogue yi sax dafa am lu jiitu mooy accueil bi euh, parce que gan yi ñëw suñ ñëwee touristes yi yeeg euh, locaux yi yëpp ay gan lañ yëpp ay kii lañ visiteurs lañ suñ ñëwee dañ leen di accueillir ba pare laaj leen fi ñu bëgg a dem liñ bëgg a def et tout ça su fekkee ne ci wàllu gaal yi la parce que fii mooy bureau information bi moo tax ma préféré sañu defee waxtaan wi fii gis ngeen carte yeeg yooyu fii lañ leen di indi d'abord ki fi xamul dara wan ko carte yi wan ko fi mu ne wan ko destination yi comme ça moom mu opté fi nga xamante ni foofu la bëgg a dem waaw su boobaa nag ñu doo ko yóbbu ci beneen bureau bi nga xamante ne nii fa la tableau prix yi gaal yi nekk. xam nga jaay ko exécution bi wala jox ko ay gilet bi war a dem jox ko ko mu mu yóbbu ko baraat am na réglementation bu ndaw parce que client bi su fekkee ne dafa ñëw euh, man su ma ko accueillir laaj ko pare su fekkee daf fi xam nit dañ koy ooyal kooku mu xam ñoom ñaar ñu dem traité ji mu yóbbu ko parce que am may nañ tuuti nit ñi quand même liberté ñu am seen possibilité am seen clientèle parce que à seeni seen i relation i li ñu investir à travers lu kenn xamul pour am seen i clients yi bopp léegi su fekkee kenn boo xamante ne daf fi ñoo te xamu fi kenn ci lañ koy doog a orienté fii indi ko ci ci ci bureau bi defal ko defal ko cartographie bi voilà jox ko gaal après mu mel ni comme gaaru ceer yi dañoo am gaal yi yëpp dañ leen répertorier def leen euh, am benn tableau du premier voilà deuxième troisième noonu lay demee après. waaw loolu moom euh, cas spécial la rek euh, ñiy jël si ciment. peut-être fii ñuy jënde ciment bi ci campement dafa dafa gën a jege. moo tax ñoom ñu ñëw jël si fi ciment mais ñun defuñ transport yi ciment ñun transport yi ñun tourisme rek lañuy def euh, ñaari dëkk yi ñu nag nangan sax mu dañu xaw a jegeyantoo gaal yi fii la ñuy jënd ciment ci Kinkeri bi fii moo leen gën a jege que charrette yi di ko yóbbu ba nangaan moo tax gaal yi jël si noonu ciment mais ñun duñ def euh, transport boobu. prix prix yi moom euh, daanaka benn la ñun duñ def au niveau du bureau. ñu def ay prix ay tubaab nit ku ñuul les prix son les mêmes parce que bi ñuy bi ñuy defar prix yi di ci waxtaan ak euh, ministère ak ay agents am dañoo dañ cee dañ cee xalaat ba nga xamante ne ni basé ko ci locaux yi pour que vraiment ñu mun a jot ci ci yëf yi moo gën dëkk ci ci ci ci dëkk mbaa ci réew te mënuloo xam réew mi donc ci loolu lañ basé wu naa mooy nag am na ay privé yu fi nekk yoo xamante ne ñoom mun ñuy def ay tarification par personne selon voilà ñoom seen i seen i seen i waaw jafe-jafe yi du ma ne ci mbirum transport rek en quelque sorte en général ci embarcadère bi parce que embarcadère bi nga gis nii sooy dugg si nii tey moo féetee ci ci ci fonds yi dëkk bi parce que fii la dëkk bi jeexee nii sës ci géej gi mais mooy poumon économique yi dëkk bi ñëpp dañ koy wax si si si l'embarcadère marche dëkk bi lépp marche parce que tubaab yi fii la ñuy wàcc te soo gisee am nañ suñu mbokk yi jigéen ñi nekk tey di liggéey ci wàllu artisanat ñu ngi toog à côté di jaay ay chapeau di jaay affaire yi artisan euh, ñun ci accueil bi euh, déjà balaa client bi dem ay restaurant ci ñun lay njëkkee ñun ñoo koy orienté ñun lay laaj ban restaurant moo gën a baax ban hôtel donc dafa nekk liggéey bu bu bu bu bu yaatu boo xam ne euh, embarcadère jafe-jafe yi nag comme ni nga koy laajee bëri nañ li ci jiitu ci man li may wax li ci jiitu mooy insécurité bi parce que mbooloo mi fiy wàcc. te soo xoolee presque kenn la man kese maa fi nekk di bugg a gérer wàlli gaal di bugg a gérer parce que fii bureau bi état bi moo ko moom euh, ministère du tourisme moo ko moom à travers syndicat d'initiative bi ñu monté woon ay bureau ci gox-goxaan yi mu war a nekk mu waroon a am animateur bañ ko tabaxee bees euh, gis ngeen ko lii preuve la équipé woon nañ ko sérieusement mais ordinateur yi ba ñu ko occupé léegi marché wul dafa mujjee taxaw parce que ordinateur kese sans internet sans dara ça marche pas donc yooyu bokk na ci ay jafe-jafe tey mënoo di wax tourisme te mënuloo mënuloo am internet loolu loolu jafe-jafe la sécurité bi moo doon wax mbooloo mi fii ñëw man kese attanu ma leen pour bëgg vraiment di lijjanti clients yi yan nationalité la ban nangam sangam di di di di mun a def seen i fiche parce que loolu yëpp dañ koy liggéey di ko yónnee di ko yónnee état bi à la préfecture euh, ou bien l' inspection du tourisme jafe-jafe yi encore euh, ndox bokk na ci munoo di def tourisme euh, parce que yaa na nos toilettes qui sont là clients yi dañuy ñëw bëgg dem toilette des def voyage bu sëriñ ñëw rapidement dañuy bëgg a dem toilette tu peux pas les toilette yi amul ndox donc jafe-jafe yi bëri nañ loolu euh, sécurité bi yemul ci yemul ci nit li ma doon wax rek sécurité bi de mun naa ko xaaj ci wàlli manque ay agent de sécurité yu ñuy gën a mun a dooleel parce que mbooloo mi fii ñëw da nga fiy gis ku ne lu ne mun na fi am ci jamono ji ñu toll tey beneen bi mooy ci wàlli kaaraange géej gi muy ay gilet ay gilet gilet moom luñ ci am doyul parce que tey soo calculé ñu ngi dugg si ci saison boo xamante ne partie boo xamante ne li ñu doon wax ba saison dañ ne amatul locaux yi tey les sénégalais période yi la ñuy ñëw di def si visite te su ñuy ñëw dañuy ànd ak seen njaboot te ñun bëgguñ benn gaal ji départ sans gilet mais day gilet yi euh, am nañu tuuti bëriwul mais dañuy am problème yi gilet surtout yu xale yi parce que per de famille mënul ànd ak njabootam moom mu sol gilet ay doomam soluñu gilet yooyu yëpp ci la euh, gérer euh, bi ci boppam. parce que ay xale dañu fee nekk ñu war leen di leen encadrer ñun dañoo bokk ci ñuy xeex émigration euh, clandestine bi parce que euh, ñàkk jàppale bi moo moo moo moo moo bokk na ci ci ci ci jafe-jafe yi ñuy am parce que nguur gi à travers ay ay branche am waroon nañu gën a mun a jàppale infrastructure yu bëri tey amuñu ko ñun ñoo koy jëmal suñu bopp en tant que GIE ki di GIE nag xam ne yëf yi moomeel sa bopp la mais GIE la boo xamante ne nii tey eh, mun naa ne GIE la boo xamante ne daanaka day représenté lu mel ni état parce que ponton yi tey nit ñi di embarqué c' est pas l' état état defu ñoo ko def c' est e bi ay partenaire am ñoo ko defar démb rek ci laa yendu di ko defaraat parce que dafa yàqoon complètement ñu dépensé ci xaalis bi dul jeex te ñëpp ñoo koy ñoo koy ñoo koy utiliser eh, autorité tout le monde donc ñun aspect bi ñuy fi ñuy liggéeyee dañuy liggéey ci wàlli tourisme nekk GIE mais dañuy liggéey en dehors de loolu parce que tey autorité yi am na temps tey la sapeur pompier am dans la zone mais avant sapeur pompier di am ay cas de su amoon fii mais ñëpp ñun la ñuy xalaat ñun ñoo jël nos pirogues jël nos gilets dem defi ay secours su fekkente ne nii nit ki yàlla def na li ci moom ñooy fexe ba génne ko eh, jébal ko ay mbokkam. mënu ma wax déedéet nag parce que yàggul dara euh, agence ASPT. moom la ñu bindoon mu vraiment mu jàppale ñu ci ay quelques gilets donc loolu mun naa ne état dugal na ci loxoom mais su weesoo loolu ah à ma connaissance de moon nga xam ne fii maa ngi fii bëgg a def dix ans ci ci milieu bi di gérer fii euh, gisuma leneen lu lu état bi def wax dëgg fa neex yàlla